bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayyidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka antal alimun hakim allahumma allimna maa yanfa'una wanfa'na bima allamtana wa zidna ilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillahi alladi ahyaana ba'da ma amaatana wa ilayhi nushur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 julli si yonentum bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sant yàlla buur bi nga xamante ne moo ñu xéewalal ñaari xéewal ya nga xamante ne duñu taay di ko fàttalantek mbokk yi ndax moo ne bu ngeen ma sante ci xéewal yama leen di xéewal ma yokk ko la in shakartum la azidannakum bu ngeen di sant xéewal yi rek ma di ko yokk waaw kon lañu war ñu sant buur yàlla ci ñaari xéewal yam ñu xéewalal bu ci jiitu mooy nelaw bum ñu may ñu nelaw waaye beneen bi mu defal ko askanu jullit ñi gannaaw bu mu leen mayee ñu dégg noddukat bay noddu ci jàkka ja mu naan assalaatu xayrun min an nawm julli ba ngeen warloo ak seen borom jaamu yàlla ju toll ni la leen di jokkaleek seen borom de moo gën nelaw bi ngeen nekkee kon képp ku dégg noddukat bay noddu li ni lara war mooy nga dem wuyu la nga xamante ne mooy woote bi si ginaaw waxtu si néew tuuti rek julliti yàlla yaa ngi woon ci jàkka ja joxe waxtu bu njëkk ba nga xamante ne mooy première audience bañu ñu séq ak seen boroom yal nañu ko yàlla nangul yal nañu ko yàlla defal xasanaat fil mizaan amin ya rabbal mbokk yi ñaareelu xewal bi mooy nelaw bi nga xamante ne buur yàlla tabaaraka wa taala moo ñu ko yenkeewal mu ne ci téere bu mag bi di suñu alquraanul karim bañu ñu yore mu ci téere bi ne man yàlla may buur bi nga xamante ne maa leen di dottil la nga xamante ne mooy xéwalu nelaw ba tax na mu ne ñu wa min ayaatihi bokk na ci kawteef yama yore fa man manaamukum bil layl nelaw ba ngeen di nelaw ci guddi waaye buñ ne guddi ñu ne climat bi buñ ne guddi ñu ne ngelaw bu sec ba ca nekk ak ngelaw bu sedd ba ca nekk ak tekkaaral bég lépp loo xamante ni kawteefu yàlla ngay xàmmee ci guddi yàlla ne bokk na sama xéewal yooyu wan naxaar ak eh, bëccëg bi nga xamante ne dama ne dama leen di andil projecteur bu toll ni jant bi su ko defee ngeen di kër-këri ngir sàkkute fu wërsëg ba tasal ci kaw suuf si moo tax mu ne ñu wan nahaar bokk na ci aaya yi bokk na ci kaw tiif yama yor bëccëg wabti aaku um min fadlihi wabtigaaukum min fadlihi ak fàgguteefu wërsëg ba ma leen tasal ci kaw suuf si ngir ngeen di ko fàggu ci sama ngënal yàlla inna fi daalika li ma leen joxoñal nii mu ngi ci laa yaatin kawtif joo xamante ne ña ko war a xelaat mooy li qawmin yasmaun ñay dégg aaya alquran fam leen di joxoñal ak lam leen di wax ña ko war a bénéficier wu ñooy ñoo xamante ne ñooy ñay jëfandikoo xadisu yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam tax na yonentu boobu ñu wàccee alquran moo la ne bu dee yàlla wërsëgal na la ba nga yeewu ci nelaw nelaw boobu di xéwal yam la yenkeewal en tant que jullit kon la nga la war nga di ko def mooy tuddal baat bu toll ni cant bi ngay sant yàlla mooy ne alhamdulillahi alladi ahyaana baadama amatana wa ilayhi nushur mboolem xeetu cant yu kawe yi ñeel nañu yàlla buur bi nga xamante ne moom faat ci coobareem ci nelaw ginnaaw si mu delloo ma sama ruux waaye bi ma fi nar yu jógee dëggantaan ci moom yàlla dong dellu moo tax boo demee xool ca suratul ruum wala ci suratu zumar aaya ba ñu jàng nemunu ci ginnaaw boobu aaya ba nekk ci suuratul ruum la aaya ba ñuy waaj a jàng nii moo nekk ci suratul zumar buur yàlla tabaraka wa nee na allahu yàlla mooy buur ba am kattan bam leen bëgg woon nii moo tax mu ne allahu yàlla mooy buur bi nga xamante ne yatawaffal anfusa mooy faat bakken xiina mawtiha jamono ba may faatu walliti waay bakkan joo xamante ne lam tamut fii manaamiha yàlla dogalut mu faat ko ci jamonoy ba muy nelaw yàlla day bàyyi bakkan boobu muy wéy di dund waaye nag buur yàlla ne ñu fa yumsiku leti qada alayha al mawt yàlla ci coobareem ak ci nammeelam mooy faat bakkan joo xamante ne moo namm ci bakkan jooju dee dëggintaan wa yursilul uxra ila ajalin musamma waaye yàlla mooy kiy bàyyi beneen bakkan ji nga xamante ne nelaw na ba doyal mu delloo ko ruux ba mu jëloon ci jamono bamu mu doon nelaw mu daldi ko delloo ci jëmm ji bi keroog waxtu yam ko appal ba jotee mu daldi ko faat yàlla ne ñetti façon doxalin wii ma leen tegtal nii ci aaya bi kiy suubu ci nelaw bu yemamaay yàlla ne kooku maa koy defloo loone maa koy singimloo maa koy jox nelaw bu toll ni muy jayaxu nelawu jayaxu ak nelawu singim ñoo bokk atte ba tax na islaam nee na bu fekkente ne def nga ko jamono bi nga jàppee bu dee santiiroo dara lanuroo ni xet bu naqari la génnee ci sa jëmm ji dégguloo dara lu mel ni soŋ nee na njàpp bi yàqul waaye nelaw bu xóor ba mel ni ba yëgatoo dara nee na boobu de boo déggee dara wala déggoo dara walla santiroloo benn xet boo ximmele koo demal jàppi ndax boobu dangaa absente carrément ba tax na islaam nee na boo ximmale ko demal nga dem jàppi ba tax na loolu yëpp melokaanu kawtif ba yàlla di roof doomu aadama bi la ba tax na mu ne ñu waay bakkan ba may faat dëggantaan ba ñu di ko tàggee loolu tamit man la waaw jamono nelaw bu jotee bakke ni yëpp ay bàbbeeku ñu dugg ci néegu dee ñii ma roof leen nelawu jayex nelawu sëngéem ñii ma faat leen dëggantaan nelaw boobu ñu doon nelaw yeewootuñu foofu beeg ilaa yawmi diin waaye képp ku ma appalanteg waxtu ba nga xamante ne jotul kooku dama koy delloo ruuxam ba tax na yenentu bi nee na boo bokkee ci ñi yàlla delloo seeni ruux lara waru mooy nga jàng baat bi nga xamante ne mooy istiqaaz min an nawm azkaaru istiqaas ne naw mooy baat ya nga war a tudd jamono bi nga yeewoo ci nelaw ne mooy alhamdulillahi mboolum xëytu cant ñeel nañu yàlla buur bi nga xamante ne axyaana moo ma dundal baada ma na gannaaw bu mu dogalee ci man dee bu ndaw te mooy nelaw waaye nag ah wa ilayhi nushur ba ma fi naree tamit ci moom yàlla laay dellu subhaanahu wa taala yàlla nee na li leen wax ci aaya bi inna fi daalika mu ngi ci kawteef yi la aayaatin yan nit ñi war a mën a bàyyi xel waaye ba xam ñépp a ko war a mën a bàyyi xel déedéet yàlla nee na ñu war a mën a bàyyi xel la leen yàlla joxoñal ci aaya bi yonent bi tegtal leen ko ci hadis du ñépp ah ñu ko war a mën a xelaat mooy li qawmin yatafakkaroon mooy xeet yi nga xamante ne dañuy xelaat di bàyyi xel kawteefu yàlla subhaanahu wa taala mbokk yi yal jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot yéen a ngi fàttaliku ne ba léegi ñu ngi nekk ci weeru tamxarit buñ ne weeru tamxarit nag ñu ne ashura bu na ashura ñu ne fukkeelu fan ci weeru tamxarit tey di juróom ñaareelu fan ci altine ba ñu nekk ni mu des suñu digganteeg fukkilu fan di tamxarit suñu digganteeg fukkeelu fan benn fan su ko defee ñuy ñaan yàlla suñu borom buy ñëw yal nañu fi fekk buy dem yal nañu fi bay te lépp lañ fa jaamu yàlla yal na ko buur yàlla nangu mbokk yi bésu altine bi di tey di neuvième jour bi di juróom-ñeenteelu fan bi ci gàddaayu yonent bi mooy atum junneeg ñeent téeméer ñeent fukk juróom benneelu at te mooy mille quatre cent quarante année bi gàddaayu yonent bi ak suñu jonn yàlla ji di tey moy atum junne ñeent téeméer ñeent fukk juróom benneelu at kon gàddaay baa ngi nii tàmbali na bi moy weer bu njëkk bi waaye yow doomu aadama bi rawatina yow jullit bi xamal ne mille quatre cent année bi weesu na yaa ngi si mille quatre cent quarante année bi ca nga nekk nii kon xamal ne dinañ la ubbil xit bu bees fa ñuy note say jëf ba keroog ñuy àgg ci weneen at bu bees gàddaay bi kon fexeel at bu nga xamante ne mooy mille quatre cent quarante sixième année bi ñu nekk ni ñu nekk ci weer bu njëkk bi di weeru tamxarit te mooy almuharram fexeel xët bu bees bañ lay ubbil kooru yow mu ashura na ci bokk ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bam ñu fa baaxee mooy damay woor bés bi ngir ma dajeg njéggalaa ba ma yàlla di jéggal buur bi subhaanahu wa moo tax ñu fas yéene ànd ak ci xadis bi nga xamante ne moo nekk xadiisu abi hurayrata radiyallahu an an abi hurayrata radiyallahu an jëlee nañ xadiis bi ci saxaabi ba ñu naan abi hurayrata radiyallahu anhu yan na ko buur yàlla gërëm nee na qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam siyaamu yawmu ashura inni ahtasibu ala allah an yukaffira sanata allati qablahu rawahu ibnu maaja ki yàlla yónn ci xeet bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee xadis bi nañu ci xadisu abi hurayrata radiyallahu an yal na ko buur yàlla fay nee na bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ne siyaamu yowmu ashura woor bésu fukkeelu fan ci weeru tamxarit yonent bi nee na inni ahtasib ala allah maa ngi am rafet njortu fa yàlla an yukaffira sanata liti qablahu ngir buur yàlla daldi ma jéggal bàkkaaru at ya jiitu moo ne yàlla muhammad sallallahu alayhi wa la yalla wax ne inna fataxna laka fatxan mubiinan li yagfira laka allahu maa taqaddama min zambika wa maa taaxar lii yàlla buur bi tabaraka wa taala yenentu bi la ko wax sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko ci njëlbeenu aaya suratul fatih man yàlla maa jox victoire ubbite makka waaye man yàlla maa lay jox victoire la islaam di jebbee di màggee di dugg fépp ci àddina si waaye man yàlla maa lay jox victoire ubbite màkk nga daldi toj éliminer bépp xërëm yafane fa jaamu xërëm dootut law ci kaw suuf si victoire boobu man yàlla maa kay baaxe mu doon fatxan mubiin mu doon ubbite bu yaatu ubbi xol yi ubbi xel yi ubbi esprit yi ubbi doxalin yi mbokk yi fatxan mubiinan li am la xataa noonu jullit ñi jël nañ la war mën a ñoŋal seen doxalinu àddina ñu gardajoo ñu di ko appliquer doonte gëmuñu yenent bi waaye la ko yàlla ne maa lay jox ubbite ak victoire bu toll nii amul dara lay tëcc lépp ngay mën a ubbi ci esprit ci système ci doxalin ci idée lépp damane ne noonu jullit ñi bu ñu demee xool ci téere bi dañ faa jukkee dañ faa rootee ñu nampee lépp luy ñoŋal seen doxalinu àddina ànd ak loolu gëmuñu yenant bi waaye dañoo jël la leen li njariñ ci seen dundin ci seeni doxalin ñu di ko applike yàlla bi léegi yonent boobu la wax ne li yaxfira laka allahu ma taqaddama min dambik ndax yàlla mooy buur bala jéggal sa bàkkaar ya nga jëfoon ak ya ngay waaj a def si moo tax mu ne ko li yaxfira laka allahu maa taqaddama min zambik wa maa taaxar ndax yàlla mooy buur balay jéggal sa bàkkaar ya nga jiital ak bàkkaar ya nga deful sax te nga narkaa def waaye xam-xamu yàlla ndegem peeg na ko yàlla ne ko jéggal naa la lépp moo tax ci njeexantalu aaya bi mu ne ko wa yutimma nicmatahu aleyk ngir ne yàlla mooy ki matal xéewalam ci yow ak say xeet waaw su ko defee yonent boobu moone damay woor juróom ñeenteelu fan walla fukkeelu fan ci weeru tamxarit ngir njort bu rafet ba ma am fa sama boroom ngir mu jéggal ma sama bàkkaar kon fii du yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi du si moom la jubal xusuusiya bi du ci moom waaye yërmande bu mu ëmbal xeetam sallallahu alayhi wa moo tax xeet bi nar koo roy ci koor fukkeelu fan ci weeru tamxarit ngir yàlla effacer ñu suñu bàkkaar ya jiitu bàkkaaru daaw woor fukki fan ci weeru tamxarit mooy woor bésu ashura da koy far day far bàkkaar ya jiitu ndegem yonent yàlla Muusa dafa woor fukkeelu fan ci tamxarit ngir ne yàlla bés boobu ko musal ak ñakk gum ci mbugalu Firawn waaye yonent bi neena man ak samay xeet dañuy woor fukkeelu fan ngir yàlla jéggal ñu suñu bàkkaar kon nga gis ne bi yonent bi wuutale na anamu woor ba ñuy woor fukkeelu fan ci tamxarit ak juif nañ koy woore ak la tax ñu di ko woor ndax juifi dañ daan woor dixième jour ci tamxarit ngir ci la yàlla musal yonent yàlla Muusa ci firawna ak mbugal ya firawna doon teg ci xeetu yonent yàlla Muusa mooy aaya bañ leen jàngal firawna bokk na mbugal yam doon teg waa këru Muusa mooy da doon rey seen xale yu góor ñi muy bàyyi di dundal seen xale yu jigéen ñi keroog ba yàlla bëggee loolu dakk dafa womat Muusa mu ne ko na nga génn dëkk bi jubali ci géej gi firawna ak gaawam yi topp Muusa Muusa ak gaawam yi daldi xar géej gi ci ndigalu yàlla ñu taxawee ci weneen wet ba waaye ba Firawna ñëwee a gaawam yi ñu dugg ci biir géej gi géej gi daldi tëju ñu lab ñu ne ndegem bés boobu moo tombeg fukki fan ci weeru tamxarit ba tax na yonent yàlla Muusa di ko woor ngir sante ko boromam keroog ba yonent bi demee madinatul munawwara mu fekk fa yahud ya fa nekk ñuy woor fukkeelu fan ci tam xarit mu laaj leen ñu ne ko bés bi da di bés bu màgg ci ñun moone ne ci la yàlla musal yonent yàlla Muusa ak njabootam ci loraange ba Firawna doon teg seen kaw ba tax na ndegem Muusa daka wooroon alayhi moo tax ñu ñu di ko woor kon nga ñëw gis ci xadiisu boobu xadiisu ibnu abbas la bii xadiisu abi hurayrata radiallahu anhu nee na yonent bi nee na woor fukkeelu fan ci weeru tamxarit nee na maa ngi am njort bu rafet fa yàlla mu jéggal ma sama bàkkaar ya ma jiitaloon ci at bu weesu kon juif yahudi la tax ñuy woor fukkeelu fan ci weeru tamxarit mu tombek bésu ashura yéene ba tax ñu di ko woor yonent bi soppi na yéene boobu nee na man ak samay xeet dañuy woor bés bi ngir yàlla jéggal ñu suñu bàkkaar ya ñu juital ndax ñun yonent mooy suñu idol mooy suñu royukaay mooy suñu yonent mooy yonent bu mujj waaye nag yonent yàlla Muusa yow mi di jullit da ngay déggal ne yàllaa ko yónni ci yonent yàlla yi la bokk waaye yéene ba tax yonent yàlla Muusa di woor fukkeelu fan bi yonent bi wax nañ ko daka woor won yahud yi man maa leen yey ci Muusa maa gana a am place bu ngeen amut ci Muusa waaye ci hadiisu Abi Hurayrata radiyallahu anhu yonent bi nañu man damay woor fukkeelu fan ci tam xarit ngir sàkku teefu jéggalaakoor ba ma fa yàlla ci bàkkaar ya ma jëfoon ci at bu weesu te moone ne yàlla da ko ne man yàlla maa la jéggal sa bàkkaar ya nga jiital kon yonent amul bàkkaar mais ànd loolu yiw ak yërmande bu mu ëmbal xeetam sallallahu alayhi wa mu yéene ko moo tax mu wax ñu li ni mel ne siyaamu yowma ashura woor bésu fukkeelu fan ci tamxarit mooy dixième jour bi mooy ashura bi ci boppam yonent bi nee inni man de man kay woor ngir lan ahtasiba alallah ma rafet njortu fa yàlla ngir an yu kaffira sanata liti qablahu ngir mu jéggal ma sama bàkkaar ya ma jiital at bañ ma génn nii kon at ba nga génn bàkkaar yaa ngi ci jëf danga woor bésu tamxarit di dixième jour bi ci weeru muharram mooy bésu ashura di fukkeelu fan bi bu dee dankaa woor yonent bi neena nanga rafet njortu ci sa borom ne jéggal na la sa bàkkaar ya nga jiital ci at ba nga génn bi maanaa bàkkaar ba ma ci mille quatre mooy at bu ñu génn nii mooy atum jullit ni bii nag dafa jar a déglu de bii du 2023 ba ñu génne de déedéet bii atum jullit ñi la yonent bi di wax fii sallallahu alayhi wa waaw atum jullit ñi mooy 1446e année ba ñu nekk nii 1445 ans la ñu génn 1445 ans ba ñu génn bàkkaar yan ci jëf yonent bi neena na ku woor fukkeelu fan bi ci weeru tamxarit ba ñu nekk ni te muy njëlbeenu weer ci calendrier jullit ñi te suñu calendrier bi mooy mille quatre cent quarante sixième année ba ñu nekk nii dixième jour bi ci premier mois ba ñu nekk nii te muy weeru tamxarit yonent bi nee na képp ku woor fukkeelu fan bi na nga am njort bu rafet na woor ci yéene ngir yàlla jéggal la sa bàkkaar ba nga def daaw buñ ne daaw nag mille quatre cent quarante cinq ans la wax ren ñu ngi ci mille quatre cent quarante sixième année ku woor dixième jour bi yonent bi neena na yàlla dina la jéggal say bàkkaar daaw kon nii la ñuy déggee maana aaya bi wala nii la déggee maana la nga xamante ne mooy hadis bi mbokk yi bésu altine bi di tey lii lañ leen andiloon ngir ñu fas yéene ko wéttalante ki yéen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ñëw ba léegi qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam afdalu siyaami baada ramadan shahrullahi almuharram ki yàlla yónni sallallahu sallam nee gën ci woor woor ba gën ci koor yi gannaaw weeru koor mooy weeru tamxarit te mooy weeru yàlla di tamxarit moo tax mu ne afdalu siyam gën ci koor ya jullit bi di woor baada ramadan bu weeru koor jàlle woor ba gën mooy saxarullahil muharram mooy woor weeru yàlla bi di muharram te yonent bi jublu si dixième jour bi te mooy weeru tamxarit hadis bi muslim moo ko solo kon mbokk yi lii dafa bokk ci xemmemteef yi nga xamante ne ñu ngi koy xemmemloo suñu bopp di leen ko xemmemloo lépp la yonent bi joxoñ ni fii yiwa ngi fi amuñu dara amut lenn lañ ci war a def lu dul ñu daw samp suñu xel dem seeti loolu la nekk ñu def ko kon bés baa ngi nii di digmal di ñëw ñuy ñaan yàlla yal na ñu fi fekk lépp lañ fa jaamu yàlla yal ñu ko yàlla buur bi tabaraka wa nangul yal na ñu yàlla jéggal suñuy bàkkaar comme na ko yonent bi tegtale sallallahu alayhi wa sallam ñu ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala an yajcalana min alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana allahuma taqabala minna innaka anta samiu alim allahuma ya rabbi aminna fi awtaanina wa aslix aimmatana wa wulaata umuurina allahuma ixfad bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan amin ya rabbal alamin baaraka allahu lii walakum fi alqur'ani alazim wa nafani llahu wa iyakum bima fihi min al ayati wa dikri alhakim aqulu ma tasmaun wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu